di am fierté ci partenariat bi nga xamné ni mom lañ def ak chambre de commerce ak mairie yi mu nekk bo xamné ni ñun am nañ yéene def fi zone industrielle parce que économie moy doxal dëkk l'islam sax ba muy wàcci dañ koo dem fekk fa marché ba fa ñëpp di dajalé yonent bi fa la njëkk a woote muy màkka ba tey gis ngeen ne ci loolu la taxawee ah di rafetlu journée économique bii mu nekk exemple te mu nekk agenda monsieur le maire bu ko bàyyi tàmbali moom day metti mais incha allah jàppal ko dat at mu ne wala deux ans yu ne nga def ko ndank ndank da nga gis da nga mujj gis ne Sénégal yëpp danañ fi dajé parce que événement moy indi dëkk moy développer dëkk ndax fi ñëpp di dajé rek ñay jaay ak ñay jënd buñ fa dajé rek nit lu muy wër dana ko fa wut ci kon bu ko bayyi continuer ko ko chambre de commerce japp ci en même temps japp ci 39 communes yi nga xamni mo moo nekk ci région bi yëpp nga xamné ni lolu bëgg ambassadeur yi ngeen di innovation la commune bu dañ la acteur économique muy ambassadeur chambre de commerce parce qu'il ne faut pas oublier chambre de commerce du chambre de commerce Kaolack chambre de commerce région de Kaolack c'est pour l'ensemble région bi la pour que ay journée économique di am monsieur le maire président du conseil départemental préfet ak ministre chambre de commerce et acteurs économiques yi pour accompagner les collectivités locales Il y a un rôle moi, représenter la population au service de la population améliorer sa qualité de vie. tax ñu deux noms c'est très précis monsieur le maire ba paré né la le premier magistrat de la ville lolu kon war nañoo xool nuñ koy doxalaté xamné population bi lañ fi nekkal comme niko monsieur le maire waxé légui wax lo xamné ni moy doléance population bi